mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki bitim réew mbokki Saalum mbokki Kajoor mbokki Bawal mbokki Jolof ñu ngi leen di nuyu seen mbokk Serigne Ibrahima Dramé mii waxtaanoon ci jamono yële passé xam naa niñ ko daan waxee rek ku artuwul da nga loolu moo waral tey ñu ñëwaat nag pour waxtaan ak yéen ndax jàmm du doy te ba léegi dafa mel ni jàmm ji dafa des ba léegi waxtaan wi nag tey ki ko bëgg a adressé directement mooy le président de la république monsieur Macky Sall buñ ci jógee waxtaan ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoom la yàlla teg ci place su àttekaay yi te yaakaar naa ne ñoom kenn ku ci ne. dangaa waat sa diggante ak sa borom bi nga demee ba nekk magistrat nga waat ci yàlla ne di nga àtte dëgg ñu am ci nag lu bari lu ñuy jaaxal te noppi nag baaxul seetaan baaxul kilifa du seetaan lii nga xam ne suñu kilifa yi ñu ngi koy ñaan ci yow waaye waay monsieur le président de la république nga dimbale ñu ba jiima yëngatu ci loolu nga xam ne kilifa yaa ngi koy tawat ndax boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar waaye gisaguñu dara ñi nga xam ne politique leen dugal ci kaso bi ñu jàppoon leen nga dimbale ñu comme ni ko kilifa gi ñaanee lim la ñaan nga dimbale ñu nga def ci sa kem kattan ndax jàmm wàcc senegal ndax senegal dara xaju fi lu dul jàmm surtout nag mu tombee ak musiba bi fi am muy mbas mi waxoon naa la na la li ci faatu bari na kenn xam nu mu toll. kilifa yi diine yi dem bari na kilifa yi aada yi dem bari na manoon la léegi lii doy na sëkk bu ñu fexe mukk ba leneen di ci dooleeku tey nag fukki bakkan ak juróom dooleeku na ci juróom benni téeméeri blessé monsieur le président de la République man de damay continuer ñaan rek bokk ci réew mi nag comme yow dëgg la yaay suma président waaye lu mu bon bon maa la fare kaw ci mag ba pare am ci njaboot gi am ko ci police bi am ko ci gendarme bi am ko ci douane fu nekk samay doom a nga fa samay jarbaata nga fa ba bëggoon nag tey gannaaw mboot njaboot gi ñoo ko bokk nga xam ne réew mii du réew moo xam ne yow yaa ko moom loo ko danga ñee waxoon loo xam ne daf ñu doy ñu wóolu sa kàddu jël ko dénk la jàppal ne dénkaane nga am waaye du loo xam ne yaa ko moom bul dëgërante bopp ak population bi bul def loolu bul dëgërante bopp ak population bi bul def loolu population bi ñoo yore doole ji doole réew population baa ko yor waaye du président ba saa yoo bëggee xëccoo population bi rek fitna fitna du fi jog fokk nga nangoo déglu population bi wax ak ñoom ñaareel bi ci des mooy nii ma gisee ñi di ko toroxalee senegal yi ci biir réew mi ak teraanga ji ñu la joxoon yow nga xam ne lépp loo ñaanoon ci sa wàllu nguur pour nga mën a seere sa nguur bàyyiwuñ ci dara jox nañ la lépp deseeluñ la dara waaye yow fi mu nekk nii ku am problème ak gouvernement buñ koy jëli sax fukki policier wala ñetti camion ñooy dem sol seeni kàggu mel ni Jibril Mande ak ay malaayika suñ demee dañuy yore seen barre de fer dajji bunt ba fëgg bunt ba weq ko ci koo xam ne boo ko buñ ko woowoon téléphone commissaire commissariat ba ko buñ ko doon téléphone kaay rek dañ laa soxla day dem woy suñ ko joxee convocation mu dem woy ji waaw loolu lu ci jaar yebal camion ngi policier mu dëkk ca quartier ba tekki fa dara am fay jarbaat ki doom nga xam ne loolu lu ne mënoon a fa am ma ko ci Assane Diouf kere bi ñu koy jëli maa ngi koy xool ci tele dajji bunt bi weq bunt bi mu naan leen bu kenn yëngatu bay leen leen xam nga kere bakkan mën na fa tuuru te pourtant buñ ko woowoon téléphone mooy ji suñ ko joxee convocation mooy ji brutalisation yi ñuy def nag ci doomu aadama yi ñi nga xam ne ñoo la faloon donte kon sax juumte du ñàkk ci ñoom waaye lu tax ñu leen jëlee façon jëlin yooyu imam Aliou Ndao biñ koy jëli Kaolack noonu lañ def dajj bunt ya weq bunt ya mu toj police yi wër ko koñ bi naan lu xew lu xew lu xew ci ko xam ne da doon jiite jàkka di waaraate ñu jëlee ko indi ko ndakaaru lu mu bon bon tëdd na ñaari ati kaso ak na ba ko ci daal yépp natt biñ ko teg taal ay lumière mbugal ko lu mbur yi daj ci taal rek imaam Aliou Ndao dañ ne ko ci koo xam ne jàngalkat alxuraan la jàngal na ñu baree baree bari di jiite juma di wax xaala laa wa xaala suulaay nekk sëtu alaaji Malick sëtu sëñ Touba sëtu Baye ñas dëkk ci réew mi comme yow ñu faxas ko ne ko defoo dara jël ko delloo ko Kawlax muy benn Khalifa sàll di sa mbokk di sa nawle di sa frère daj lu ne ci yow defal dëkk Ndakaaru juddu Ndakaaru nijaayam feebar na ba faatu mënu koo tiim nga jàpp ko yóbbu ko ci kaso bi ba yàgg ñu jekk-jekk ubbi génne Karim Wade guddi lañ ko génne defar ko passeport yóbbu Panama yóbbu mu dem man nag lu mel nii daf ma jaaxal ndax dama gisugut ci président de la république Léopold Sédar Senghor ba léegi lu mel nii koo ko def man maa ngi koy door gis ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne jàpp nañ leen jàppin gi moo ñaaw jàppin gi monsieur le président de la république xoolal li ñu la falee woon ak li ñu la joxoon ak teraanga ji ñu la seddoon nga yóotu Ousmane Sonko ci yoo xam ne du yëfi dara ay affaire u viol te yow nee nga yëgoo ko nee nga yëguloo ko waaye def naa fi mu yëg nga ko Sénégal nag fi mu nekk nii moo yëgale ne la quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi gëmatuñu wéyal bi wéyal bi gëmatuñu ko c'est un complot complot bu mat sëkk moo fi nekk parce que ki démb ki ñuy wax avocat jaabal xaw ma indi ndaw si teg ko di sëgg di ko yootal bindal kaw kayit mu di ko liir man gëmatuma lu dul complot bu mat bu ñor xomm mu nekk ci lii gannaaw sëñ bi wax na nag ñun sëñatuñu sax sori ci loolu ndax xam nañ ko xam nañ cër bi ko yàlla jox te jox nañ ko ko te nangul nañ ko ko te ñu ngi ci gannaawam gannaaw bi yàlla wéyee yow nag ñu ngi lay ñaan ñii nga xam ne nag tey ñu ngi ci kaso bi te ñu téye leen ci wàllu manifestation yi tax ñu téye leen nañu leen libéré réew mi am jàmm te it kaso bi maa ngi laaj le procureur général ak le procureur de la république depuis 2012 Macky Sall toog Sénégal ba si njooni tey jii ñaata junne lañ tëj ci kaso bi ci doomu aadama ñëw rek ñu ne mandat dépôt yow mi koy def yow bëgguloo dugg kaso amul ci ñoom kenn ko xam ne ñi bëgg ngaa dugg kaso yéen bugg leen cee dugg ba pare di ci dugal nit ñi ku ñëw rek nga jël sa big rek bind mandat dépôt kaso baa ngi fees dell ak doomu aadama ñii ngi feebar ñii ngi yor lu leen di métti te ñu ko wax ñenn ñaa ngi yori njaboot goo xam ne tey seeni njaboot wéruñu amuñu lu ñu lekk waaye seen yaram na daw dama ne 2012 ak léegi def leen comptabilité ñaata doomu aadama ngeen dugal ci kaso bi le procureur général maa ngi demandé loolu le procureur de la république maa ngi laaj loolu ñaata junniy nit ngeen dugal ci kaso bi ñaata. ma dama yaakaar ne ku tëj ay junniy junniy nit boo tëddee si kër dina la seen nelaw yi war seen nelaw yi war war ta for ndax doomu aadama ni mu foree yàlla ne damaa teral bind doomu adama teral ko wala xadd karam naa bànni aadama ñu tëj rek kaso yaa ngi fees dell bu fekkoon sax dafa am bés yéen ñi leen dugal ci kaso yi ngeen dem seeti leen xool ni ñuy toogee ak nan kaso ba la fa nekk sax ñu ne waaw sax bokk ñu bëgg a loru ñu teel leen a xam am na ñoo xam ne fa ñu nekk ba léegi seeni dossier kenn laalu ko am na ñoo xam ne sax seeni bokk jóg xamuñ fu ñu ne ñu ngi ci biir kaso rek nekk fa waaye waaye loolu daw na yaram ragal leen yàlla ragal leen bésu bàmmeelu ñetti fan inna yawmal fasli kaana miqaatan yawma yunfaxu fi sóori alquran wax na dégg ngeen ko bisab dig ba nga xam ne ci la yàlla di atte jaam yi nañu bàyyi xel ne luy ñëw la ni doomu aadama di juddoo màgg ba doon dara dee ñëw mu dem kenn gisatu ko ngeen xam ne dee am na war ngeen xam ne dekk itam am na war ngeen xam ne bés penc itam am na te it yomal xiyaam it ëllëg yàlla dana janoog jaam yi laaj leen gis ngeen ne ku faatu woon lu yàgg boo ko tegoon tey ci télé muy waxtaan da nga ne mu ngi dund loolu misaalu alaxira la bu leen foog ne alaxira amul de ñu bari nag dañu foog ne àllaaxira amul ndax lu ko waral mooy li ñuy wax cour constitutionnel waaye yéen ay sénégalais ngeen wala fan ngeen dëkk yéen ngeen juddu ci réew mi seeni waajur yar leen ci lislaam ñeen ñi xëy na ay chrétien ndax kenn ku ne ak la nga gëm ngeen dem ba àgg ci magistrat ca fa na a kowe daal di waat ñu teg leen foofu ngeen di nekk ay sas xawma nga xam ne tey dossier bu bëgg a lëj wala boo dëgër wala dossier bu am jaaxle boo xam ne tey jii àgg na foo xam ne tey yéene ko moom yéene ci war a wax ngeen na incompétent depuis ci Senghor mën naa ne wala boog mën naa ko commencé depuis ci Abdou Diouf depuis ci Abdoulaye Wade rawatina nag depuis ci Macky Sall te bu élection jotee bu naa bu bëggee candidat ngeen validé ko waaw te yéen suñu waxee ngeen incompétent yéen nag jógee leen foofu jël leen seen saa ngeen dem comme yéen li leen fi yàlla tegee mooy wax dëgg ak tëddee njaaxanaay loolu nanguwu leen ko incompétent incompétent mooy lan li ngeen ñu jox mënuñ ko àtte comme mënu leen ko àtte sol leen seen dàll ngeen génn foofu du seen place ñu indi fa ñeneen lii ngeen di def rafetul te alquran a ngi nii bu dee gëm geen wala gëmu leen yowmal qiyaam day ñëw de te yàlla ku xereñ la nag gis nga da nga yaakaar ne bis penc du xaar sax loolu fii la lay njëkk a roofee feebar ngay lekk alal li population bi population bi leen di fay Macky Sall fayu leen liñ leen di ci population bi la jógee waxal leen population bi incompétent dossier bu ñu indi rek ngeen incompétent dossier bi ñu ko indi bërki démb ñooñu jàmm lañ bëggoon fexe ba delloo Ousmane Sonko ak xam delloo Khalifa Sall ak xam delloo Karim Wade ak xam ñu yem ak yow ngeen bokk dëkk bi su élection jotee ku nekk la la yàlla sédd nga def ko ku ci yàlla jox réew mi nga jël ko yàlla mooy joxe nguur moo koy xañe bàyyi leen incompétent yi ngeen dëkkee réew mi moomu leen ko réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye waaye atte leen dëgg te ragal yàlla bis penc dana ñëw de ñetti fan bàmmeel nga newi ba fees ci bàmmeel bi sax yi commencé butti butti kenn ku ne ci ñun mu ngi ñëw ci man li ko dalee ci man ak ci yéen ragal leen yàlla seen borom bàyyi leen incompétent lañ ci dossier bi mënuñ ko atte ba leen loolu su ngeen ko mënta atte fan bi jëm luñ leen tege woon foofu population bi ñoo leen fal dee leen dee njaxanaay ba leen li ngeen di def wala bu ngeen mënut liñ leen sédd wóoloo leen ko population bi wóole woon leen ne yéen yéenay ñi nga xam ne yéenay cour constitutionnel waaye waaye atte leen dëgg su ngeen mënul nag dossier bu ñëw ngeen da ngeen encore compétent kon nag sol leen seen daal ngeen jugee foofu kon li ñu leen fi tegee mënu leen ko matoowu leen ko nitam bu leen yàq suñu rew te su président bi bëggee candidat ngeen validé ko waaye population bi wala wala opposition bi bu ñu indee document bu ñu indee ngeen refusé ko loolu fu ngeen ko teg te ñun ñoo leen di fay ñun population bi suñu alal ngeen di lekk. yéen a ngi lekk aqi ala aqi population bi nag parce que dañ leen a fal pour ngeen nekkal fi ñëpp waxuñ leen fal ngeen nekk fi kenn gisal fi mu nekk ni tey OFNAC ak Cour des comptes ñaata milliards la ay nit jël tëdd ci ñu dajale dossier yi benn jigéen jël ko jox ko le procureur de la république boobu ba léegi gisuñ ci kenn ku ñu woo taxawu la laaj la enquête la kenn waxu leen dara ba léegi kenn ñu jàpp gaa yi nga xam ne tey dañuy sàcc ganaar ñu sàcc ay yu ndaw ndawaan di leen tëj ci kaso ñi nga xam ne ñoo lekk alal réew mi nekk ci réew mi ñëpp xam leen te kenn waxu leen dara monsieur le président de la république yow xam nga ne am na ñoo xam ne def nañ fii musiba wane wàng injustice bu rëy rëy rëy ci rey ay nit loo xam ne kuy magistrat yi nga toog xam nga loolu waxoo ci dara naka ngay mën a bàyyi kooku jàpp imaam Aliou ndaw moom toroxal ko indi ko ah? nit ñi nag ñu ngi mer kilifa yu bari mer nañu mer nañ la lu ko waral ci doxalin bi ñu ngi lay ñaan lii nga xam ne moo bëgg a tas senegal di xale bu jigéen kese waa jooju ñuy wax avocat jaabal nga xam ne moom rusul sëñ Muntaxa rusul sëñ Bay Si Mansoor rusul maam Limaamu Laay bi nekk fi nekk fi Ndakaaru rusul cheikh al islam rusul omariyeen rusul benn kilifa diina lépp lu xew Sénégal rek moom bokk na ci ñor almet taal ko ñu naan ko avocat jaabal senegal yi mere nañ la lool kilifaay diini yi mere nañ la lool wallahi malaayika yi sax mere nañ la ndax yow taalkatu safara nga ni nga mel bàyyi ko Sénégal moomuloo ko bàyyil ni nga mel di saaga ay nit Ousmane Sonko luy sa ci moom loo joteeg moom xamuloo ko xamula man farlu wum Ousmane Sonko de Ousmane Sonko xaw ma këram waaye Ousmane Sonko luy sa moom. doomi jàmbur ji nga topp di ko xas di ko saaga luy sa yoon ci loolu goreel nekkal gor avocat di jàbbal yow laay waxal nekkal gor baleen jikko ji ngeen yor fi Sénégal ku mu neex nga jàpp ni di ko saaga monsieur le président de la dama lay ñaanati gisal fi mu ne réew mi dem nañ ba fi mu ne kenn wóolootul état ku ñu tëj kaso sax nga ne sookoruma de jabetuma de aw ma hypertension de lu tax loolu mooy wóolootul état ndax ragal nga ne ba fa duggee ñi def la fa dara waaw bu ñu demee ba état fi mu ne kenn wóolootu ko téléphone jàmbur ñi di ko déglu loolu bu yàggee fu mu jëm histoire bi du jeex te ji senegal nag jàppal li ma la wax bu baax a baax Sénégal du Conakry donte kon Conakry ñu baax fa dëkk réew mu ne ak na ko yàlla melloo Sénégal du Abidjan Abidjan ñu baax a fa dëkk waaye réew mu ne ak la ko yàlla melloo fii réew la ma sëñ Touba liggéey ba ne boy yi Cheikh Sida Si liggéey ko ba ne boy Cheikh Omar Foutiyou Tall liggéey ko ba am ne boy ci lépp li nga xam ne tey lu jëm ci mbaax la ak jàmm ak lislaam cheikh islaam noonu noonu limaamu laay bii ci yoof noonu dëkkal ñëpp dalal ñëpp réew mi am jàmm waaye waaye réew moom bu ñu ko yàq waajale bu ko dëndaleeg dëndaleeg beneen réew fii troisième mandat mënu fi am de dégg naa na nga wax ne mosuma wax damay def troisième manda mais loolu wax ji des na neel du ko def waxal ci sa làmmiñ ne man duma ma def troisième mandat te bu ëllëgee su campagne bi ubbee bul seetaan benn équipe ñuy kar ay nit ci yoon yi di leen gaañ ak brutaliser ki coow te nañu bàyyi ku ñu jëlee ti ku am problème ci état ñu yebal mbooloom police ñu daj say buntu mel ni koo xam ne dafa rey nit Sénégalais yi ñu am jom lañ ñu am ngor lañ xoolal coon sekk na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaraal jana ci jégal ko nit ku baax nit ku gore nekk na kaso génn coon seexu ku am kersa la nit ku jub la <laughs> nit ku baax fu mujj tey ajjuma ñu ne ko lii la doon toppee defoo ci dara samedi dimanche mu faatu senegal dafa am jom nitu senegal dafa am kersa nañu bàyyi nit ñi ñuy toroxal kuñ ciy jëli nañ la woo téléphone ne la commissaire bi woo diw nga ne ah mu dañ laa soxla dix heures suba nga dem woy ji wala ñu di la convocation waaye dem fekk ni ci quartier boo xam ne tekk na fa dara nga ne fa déet ay policier dajj bunt ba bés brutalisé ko brutalisé ko yeewu ko ne ko ñarang loolu wax dëgg yàlla rafetul ci teraanga gi nga xam ne joxoon nañ la ko kon nag ñu ngi lay ñaanaat nga delloo si jàmm ñi nga xam ne nag dañoo ay nit jël fetal tiir ay nit ñu dee nañ leen identifier jàpp leen teg leen ci yoon loolu jarul mu yéex dafa war a gaaw leegi ñi ko def xam nañ leen te mbiri Ousmane Sonko yii du dara du yëfi dara dindi ko mu jeex bu mu tas réew mi ay complot kese la. dara du ci dëgg man maa ko wax avocat di jaabal lu mu indi xale bu jigéen delloo xale bu jigéen bi ay waay juram sa doom yi nangoo ku leen génn sa kër delloo xale bii ci ay way juram mu ñibbi ci waat ay way juram ñu ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum